ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay. Karim laay wax wala. non c'est pas Karim c'est Kader. Kader effectivement. alors tey ñu ñëw seetaan euh, dernier épisode bu saison bi lan lañ ci mën a xaar déjà dama spoiler un peu parce que gars yi dañoo. non spoiler moom xam naa ni buñ ko defee sax du leen neex waaw buñ ko defee du leen neex xam naa ni surprise bu rëy moom leen di xaar et que allah c'est di ngeen kontaan. deuxième saison bi nag ñu dund ko nit ñi apprécier ko nit ñi seetaan ko bu baax yan satisfaction ngeen ci am yéen acteurs yi ko joué. bon en fait euh, satisfaction yi man li ma si njëkk gis mooy enseignement bi si ni ñi di tirer pour chaque cas et que aussi la série est pleine d'émotions waaw donc euh, à chaque fois da ngay sentir ne téléspectateurs yi émotion bi mu leen di procurer mu leen di dugg à 100 pour cent et ça moom je pense que c'est quelque chose qui fait plaisir quoi. yow ci rôle boo xam ne patron bu compréhensif en même temps di jox conseil sa employé ñu bëri amuñu temps boobu noonu loolu ñu bëri jàng ci tamit. si si effectivement je pense que patron yi am type d'employé yu mel ni may c'est c'est le genre de comportement bu ñu war a adopter waaw trop xuus ci affaire bi mais je me dis c'est la bonne chose à faire waaw. alors kon euh, saison bi am nga ci satisfaction nit ñi liñ ko seetaanee aussi neex na la yan retour nga ci am déjà yoo xam ne yow. bon personnel personnellement concernant le rôle de Kader tout le temps ay retours yu positif moom laa ci am très sincèrement donc euh, je me dis c'est signe de motivation et que espérons si toutefois saison 3 am et que rôle bi dina. bàyyil may bàyyil may euh, mu dem si. certain. certains ils me disent ça waaye ouais, certains ils me disent ça. mag bi danaan moom yow la yéene may. voilà majorité en fait surtout les femmes elles disent ça elles disent que Kader lañ gën a yéene may ka Lamine. mais certains ñi nga xamante ne tey seen coup de foudre depuis première saison moo nekk euh, relation May ak Lamine ñoom vraiment même ba léegi malgré le fait que ñi gis ne Lamine moo ngi si yenn difficulté et que na May avant le mariage ñoom malgré sa ils disent que Lamine ak May ñoom ñoo kii. allez bien alhamdulilah. Ah, alors. deuxième saison euh, Karma yow tamit nga ñëw ci actrice bu bees. ñu découvrir la rôle bi nga réussir ko man la njëkk bett. et euh, en tout cas c'est un projet boo xamante ne nii rafetlu naa ko et en tant que actrice je pense avoir donné le meilleur de moi-même et euh, ngeen baal ulli aussi si réewandem <laughs> c'est vrai c'est vrai yaay ji la xaw a jël nag yaay ji la xaw a jël mhm. alors rôle bi nan nga ko réussir est-ce que méttiwul woon est-ce que amoo ci ay retour yu lay métti Bon, oui et non. C'est pas facile, surtout <laughs> euh, endosser Relou Ouli. Et il euh, faut savoir que Managmom, on est diamétralement opposés parce qu'on on va se dire la vérité. Ouli, c'est une catastrophe. Et euh, d'habitude, lui, euh, Gunabet Nini, moi, euh, en dehors de. Euh, comme je disais, lui, Betiniti, toujours, c'est une Mahamet personnellement. mooy différence bi am entre man ak Ouli j'espère que si toutefois saison trois am euh, dina changer jikko quand même. Mhm. merci beaucoup à vous au revoir. naa la. alors euh, si si Karma xàmmee nañ la <laughs> Lamine yooyu yaa mën naa wax yaa créé divorce ak yooyu noonu yëpp mais rôle bu am solo nga joué ci Karma nit ñi apprécié ko jigéen ñu bëri ñuy dund li ngay dund gis ci seen bopp ci rôle bi nga joué. waaw rôle bi may joué dama ko joué ba pare mais par la suite man j'ai senti que ne lii dafa am sens lii dafa am njëriñ parce que jigéen ñu bëri tey dañuy dund li may dund une femme battue buy dund de violences conjugales xam nga dafa bëri ci société bi. donc boo koy joué rek feete nga ci am pour yee nit ñi yee population bi pour que les femmes ne se laissent pas faire bu kenn bàyyi di sa jëkkër wala kii sa ce soit ngay muy commettre benn violence quel qu'en soit waaw c'est pour cela. mu mel ni tamit sa jëkkër dem extérieur ñu bëri ñuy dund loolu seen jëkkër yi nekk extérieur du ñu am euh, koo xam ne dañuy wut keneen quoi wala bëgguñu ku ñu sëyal ak yooyu noonu yooyu yëpp message yooyu yëpp mun naa message yu am solo yëpp ci carrément yu bëri yow dëgg la parce que ñu bëri dañ koy dund sa jëkkër nekk extérieur nga nekk fii di farantu wala ngay def naka sudul noonu parce que c'est pas normal jigéen da ngay toog sa place réglé am fi nga war a teg sa tànk moom moo tax conséquences yëpp am fi ne nii mais nag dina yee ñu bëri ñu xam fi ñuy teg seen tànk incha